saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa jiixi jaaxa ba ca combat royal ba diggante Modou Lo ak Ama Baldé jiixi jaaxa ñu ko waxee ñu war a xam ne am nga wóoratul sotteetul jiixi jaaxa fuñ ko waxee ñu war a xam ne combat boobee am nga wóoratul bile combat bu ñenn ñi jàppee ne war naa am ci ginnaaw Luc Nicolaï it ñeneen ña jàpp nañ ne tànk Luc Nicolaï ñëwul warta am muy kaaw Luc Nicolaï encodi staffu Modou Lo yépp ay jiixi jaaxa moo fa am Modou Lo ca journal record la mu xamle mooy combat bi dañu koo tayle te tànk Luc Nicolaï génnul mënta am biram ñi ngi may manager ba ca sunu làmb la xamle ne combat bi dara mënu koo teree am képp ku war a bëri ci bile journée booyee boo entraîné ji bu ca staffu Luc Nicolaï ba léegi foofu it ay jeexi jaaxa fa am xaaj bu njëkk ba la xamle mooy tànk Luc génnul ci kaso bi combat bi mënta am beneen groupe ba la jàpp mooy Luc Nicolaï nekk feek ñàkk fee nekk combat bi dina am journal ba xamle ne dana amam du am ndeyi mbill gi Luc Nicolaï képp ko mën a wax moom rekk mën a wax ndax combat ba dana amam déet combat ba war a 2000 xaar ba xam kan mooy enregistré ñaareelu defetam ak kan mooy génn ca saaku ya ñi tàbbi ca saaku ya ci week bi bokk na ca bébé bis mi ak kaw gourde samedi janvier ca stadium Iba Mar Diop la doon jàkkaarloog bébé bis mi foofee Ada Fass da woon boppam dox ci kawam ci 1 minute 59 daan ko jéggi ko jàll bébé bis mi ma jóge ci saison de lutte bu baax génn ci ñaari victoire Ada Fass na ko bu dee démb ca arène nationale 2 ziga 18 xeeru ngor la daan le mars booy pir mu jox ko wàllam le 27 juillet bi démb la woon le janvier ci kaw kaaw gourdin journal ba xam le ne bile gone day dem kenn du ko téye ñi bëgg dem te demaguñu fenn mooy waa écurie Rock Énergie ba saison bi ubbeeg léegi 5 combats 5 défaites le 15 ñu génn ñaari défaites la ñu ci benn journée journée boobee Yékini bu Seex Baba dafa daan marle grand combat bu moustique daan Boy Sine le samedi bii ñu bu Bada Dione moo daan Ahmed Lo bu Rock journal ba xam ne ne boobee daal nañu tàmbalee dalul xel bu dee Émile François Gomis moom na mu tàmbalee ci lutte sans frappe bi dal na xel neex na ñaari galaa yi mu tàmbalee yépp da koo jël 10 millions yi ci arène nationale ak Jax production moom François Gomis moo ko jël foofee Cheikh Tidiane ñaa la daan yóbbu ndam la gala promoteur ya démb ca Iba Mar moo ko jël ci kanamu Boy Faye foofee ca jamaykee boroom jam production moom la bees amee des ci Sénégal xalif général des promoteurs ca Gambie defatina lu bees ñeenti espoir yi gën a bëri coow ca Gambie lay dajale cib tournoi deuxième journée moom jam production galaa dafa la ko fa séenee def ca Gambie ñeenti espoir yi mu boole mooy Rambo building Boy Balla ak Sa Thiès bile ñu ngi ko jàpp le avril 2020 jërë ngeen jëf mbokk yi li mo nekkoon li gën a fës ci tu yéene gaay